njaboot gu barkeel ci sëyam bi te boole ko borom këram ñu dund ba kenn ki suul moroomam. c'est ça amiin waay mhm. alors hmm, merci El ñu jàll ci beneen euh, dossier boo xam ne moom la ñuy tëjee nag émission bi tey c'est vrai que gudd na Pape ñu ngi jéggalu régie <laughs> muy kaaw ba euh, muy boos ak Oumy ah. euh, moom la Fama Kassé doon wax léegi. faama caché daa mel ni mu doon woo sax de moom itam ah. ok faama boo duggaatee ñu jël la daf doon wax boos ak ummi <laughs> maam waalo boos ak ummi moom vraiment man dama koo mënul sax maîtriser. barki alxuraanul karim boos ak ummi. luy problème bi boose ak ummi toujours boose ak ummi dégg naa dañ leen dajaleel xaalis ba ñu am visa alors ummi moo am boos amul boos ni ummi du dem te ñu doon dajale xaalis bi dañ ko doon def pour euh, ummi dem ci euh, bitim réew faj ci donc affaire bi nag créé na polémique parce que ñoom ñi ngi bëgg sax ñu delloo leen seen xaalis vu que ndaw si dematul. waaw bala maa dugg ci ñi man dama maa ngi nuyu sama benn xarit maa xadi maa ngi koy nuyu bu baax ndax tey moom temps bi damaa tànc lool sax. maa xadi doomu ndeyu ni doomu nday jaara sama xarit bu baax boobu macha allah maa ngi koy jox wàccuwaayam bu baax a baax boroom la 18. waaw Oumy ak Boss moom mën naa ne buñ ci waxee waxoon nañ ci parce que jabar boo ko amee di di utee ci moom li nga li nga bëgg mën naa ne sa sa affaire dina metti torop ndax euh, bu dee xale bi da koo takk te yàlla rek tax ket nañ ci dëkk bi ba am lu nga xamante nii parce que am nañ sax 6 millions na ci ni ma ko déggee euh, ku jigéen ci la visaam génn man pour man moom pour waxoon wax ji rafetoon rek ak mu oyof ci boos mu bàyyi woon xale bi dem faju ji su bàyyi xale bi faju ji ci biir avant xale bee ñëw bunt mënoon na faa feeñaat mu dem déposé waat bu déposé suñ ko mayee mu fekk ci jabaram wala jabaram ñibbi ñu ñaanaat bu dem moo gën a nice daal ci sama gis-gis man même pas ni mu ko defee nii wax dëgg yàlla nekkul lu kenn rafetlu parce que xale bi mu ngi ànd ak moom ci loo xamante ne bu ëllëgee du comprendre léegi ëllëg lay xalaat ne sama jëkkër ji da dox ci sama sama maayin te yaakaar naa jabar boo koy takk avec plaisir nga koy takkee même pas ngay commencer ci kawam wala ngay utee xaalis ci kawam. boos xaw man ka fan lay taxawa di ci di kettil àddina ñu ko jox junni. la muy liggéey gis naa ko muy jaay ay tissu de. tissu ah? ay tissu yii gis naa ko ma koy wër si dëkk bi di ko jaay waaye day teg xel nit moom bu dee daa bëgg a dem opéré waale tuñe mi ne fii na ko wax. na ko wax même pas yi muy def nii jekkut parce ni ku nekk am nga sa jàngoro boo xamante ne sa yaram soxla nga tubaab bi. di ko intéressé wala. xaw ma nu mu demee noonu wala wala wér gu yaramu jabar loolu lay ah vraiment c'est c'est c'est vilain ñaaw na de li mu def ñaaw na de ndeysaan mënoon na wax soxna si mu dem parce que soxna si handicapé la bu demee Europe dañ koy dinañ ko taxaw te gis naa xa benn gel mooy gel bi nekk ci TikTok bi dama tudd kii Fatou def na live ba ne ummi bu ñëwee mën na dal sama kaw sama kër mais te kooku ku baax la nit ku le temps day nekk ci TikTok bi nekk di live di make up boppam di def yëpp nee na su ummi ñëwee mu ñëw yóbbu ko këram bu fajoo ba pare mu nekk xanaa kon loolu yëpp buntu la kon moom bu buntu feeñee bu mu tëj buntu bi. Hmm. mënoon naa bàyyi rek benn buntu bi dem. mu téye buntam bi sax koo xam dañuy wax ni da ngay utiliser sa jabar. sa jabar bu luy amee aussi. mënatut wax lu nit lu nit. nga ni nga du dem parce que sa génnul loolu da ngay nit ñi doon wax. li nit ñi doon wax la question bi may posé waat rek mooy moom sant jabaram moo ko ñor wala visa bi. wala dëgg yàlla ma ah man de jaaxal naa lool. mais non seulement dajale xaalisam jox la ba pare vidéo yi boo di def temps yi moo ummi rafet loolu parce que ñu ngi wax ci comme si que dañuy ñaawal ñenn ñi ketoon seen xaalis. moom après moom moom après lay xam ne day ñaawale wala day dara parce que Sénégal mën nga koo nax benn yoon mais doo ko nax ñaari yoon. fii ne ni xam ñuy def faalewuñu li ngeen di wax seen sinab yi ñuy sinab seen bopp la ñuy ñaawal parce que ëllëg mooy tax. ndax nit mën nga tëgg dara bàmba. Hmm. yaakaar ne yaa ngi ci yoon bu bu baax nekkoo ci yoon boo xamante bu normal la te après ngay comprendre. moom nag après lay comprendre ne man kat ma am sama soxla dem ci nit ba fajal ma ko ah ako yomb waaye nag dangay wane confiance bi tax nit ki di këtti alalam di la ko jox ci sama gis-gis man hmm? parce que nag nit ku nekk dangay sàmm sa der nit ku nekk dangay bëri bañ parce que boos ni defee nii nit ko nit ku bëri bañ ko ku bëri bañ dëgg du defee nii papaay xale bu góor bi jigéen bi def na interview wax na ci nee na moom bu sañoon mu bàyyi doomam mu dem ah te yépp nit ñi tamit loolu la ñu wax na bàyyi xale bi mu dem di mu dem faji tànkam bi su fajee tànkam bi après moom yàlla mën naa dikk mu dem bu yàlla tuddee Europe mu dem mais moom daal ci tànk ummi bi la bëgg a demee ci picc mi loolu yéeme na lool. nee na daal ummi du dem bàyyi ko fi. il faut tànk bi rek ci ci la bëgg a demee. dafa am occasion bi rek la am pour dem. wa non non amul bii nag xale la dara moom dara kiiwul ci moom. su ummi non mais lii dafa doy waar ah, ba pare boos nee na ñi ci doon dugg di ket ñëpp dañ doon def juste pour wut buzz quoi. loolu mooy def lu baax ba pare lu bon fekk la keroog wax na ko benn grand benn gambien ñu doon def samp seen live di wax rek wax nañ fu nekk ñii naan dañuy tëg di ñii naan dañuy def lii léegi nag ñoom dañ doon def lu baax lu bon fekk leen ca ah, ñu ngi masawu ñi ñi ketoon xaalis bi problème bi daal lan la ñi yooyu yor dugaloon seen xaalis xam nga ni xam ngeen seen i numéro ku nekk la nga lam la dugaloon bu ko xeebal dugalaat ko ko amul dugg ci TikTok bi naan ku soxla day def nii na def nii yéen xam ngeen numéro yi leen dugaloon xaalis nan ko nan jox seen xaalis mooy dëkk. ok <laughs> allo Fama. allo Bamba na nga def. oui Fama. yaa ngi ci jàmm. ça va très dégguñ la bu baax. maa ngi maa duggaat di jéggalu ci waxe Aziz Ndiaye ak jabaram parce que xam lan moo tax hmm. parce que nit ki maam waalo mënu na da ngay tagg njoletaal di xas eh, ay Rassoul man Aïssa Rassoul xasuma ko mais Aïssa Rassoul moom li joxe moom mu toog xamu ko xëy na seetaanul xew bi ay Rassoul As Ndiaye Aziz Ndiaye la jox deux millions jox gorom cinq millions jox mama doomu Aziz Ndiaye deux parures en or benn bàgg jama ak un million dimbale Liis Ndiaye trois millions man du ma wax lu ma xamul du ma parce que réseaux sociaux laay waxee te bëgg naa ëllëg lu ma wax rek bu ci nit taxawee ma teg ca loxo na njoletaal wax jam wax dafa rafet parce que njoletaal ay waxam du ko wax ci biir néeg ca mbooloo la koy wax foofu laa waxee ndax géwël la hmm. ndax xale koy ànd ak moom bu mbooloom toogee da koy digal xam ne yow àndoog moom ci naafiq àndoog moom ci ay sos hmm. geste boobu la Ndiobé taal defee ci famille Aziz Ndiaye di ko wanal ne ko dëgg la ànd ak ñaareelam. Hmm. man nag damay wax ci problème mu boos. Hmm. man bi ma seetaanee papa yi uh, ummi mu wax. Hmm. damaa ruus. ma seetaan benn xaritu boos mu ne boos dafa liggéey ummi. mais yow ñi la dajaleel ay xaalis dajaleel ne la xaalis ne la yow umi bu ñëwee mën nañ koo booleel ak.